di gërëm ñëpp di sant ñëpp solo si ndaje si rek la mooy wareef li nga xamante ne def nu war ñu koy def si biir askan wi muy lan muy jéem a jàppale suñuy askan ci turu ñi nga xamante ne ñoom la ñu yàlla boole tey ñun suñuy kilif si gox bi muy kan muy honorable député le maire Ndiagne Diop ak le représentant des imams muy euh, imam Ndoye Andoye Diène le représentant du maire pour le moment doyen Zal Diop la ñu ngi nii taxaw ak le représentant du chef de village xam naa sûrement dafa am benn contretemps donc vraiment sunu mbébét ak sunu yitte yëpp mooy jéem a suudewu derrière ñooñu ma leen limal tey nu doon ay ndaw di doon ay doom di doon ay rakk di wéy si ndigal aussi ngir vraiment soxali sunu secteur soxali sunu commune. ñi nga xamante ne moom la ñu yàlla boole gox bi tey muy kan muy Malick Sow sunu délégué de quartier ñu ngi koy sant di gërëm di ko ziar ak imaam Amadou Sow ak Yara Sow ñoom ñëw fi suñuy pilier donc vraiment loolu rek lañ si jubloon pour euh, jéem a am accès ci askan wi. Mhm. li jox nii lan la nii exactement. ok donc yéene bi moo doon jéem a xool ci lu nu yàlla dénk. Mhm. nu cof ci bokk ak ñi nga xamante ne ñoo doon yàlla booleel. muy ñan muy suñu secteur suñu dëkk dëkkuwaay ak suñu dëkkando ak commune bi yëpp ku si yàlla tudd sa wërsëg am na nu yéene bi franchement pour teg ak yow loxo saafante ak yow nu baalante ak nu ñaanal aussi kii nu yàlla booleel tey ba nu mën li nu mën tey gannaaw yàlla donc bon pour le moment on a 30 de plus 30 tonnes de plus de riz ak dëwlin waaw pour le moment loolu lañ fi amagum am bon nu ñaan yàlla aussi yàlla dolliwul leneen ak leneen ba gis war a gis seen bopp yow gis seen bopp. franchement wala saa koy def. non non ñu ngi sabablu parce que dafa noonu ko daaw fekkee ren ñu ngi ñu ngi góorgóorlu aussi vraiment di ñaan yàlla aussi yàlla tegtee nu ba déwén ak jàmm nu def lu gën li nu def ren. ci kattanu yàlla. waaw bon njaboot yi si bénéficié wu mooy suñuy njaboot ah. waaw suñu njaboot la pour ñëpp la parce que tey village de Gorom 2 ñun ñëpp ñoo ko bokk commune de Bambilor ñoo ko bokk rawatina kaka jir jiir tey fii la yow si dëkk bi donc suñu mag la suñu lépp la vraiment pour ñun ñëpp la lu fi waaye def sa bopp nga ko defal waaw. Ibas euh, nga nekk euh, quelqu'un xam ne très actif dans le social. Mhm. sa politique est basée sur la politique d'assistance sociale lan moo les actions exactement choix la wala boo ko waaw choix la parce que xam nga bu la yàlla nattoo nga am ay jaar-jaar yoo jot a jaar. ngay tettee yàlla di la tettee ngay daana ko jóg ba am geneen beneen gis-gis boo am dangay ngay lépp lu fi waay am te bokk ñu ko war a bokkal rek amul sens pour man. donc lool yëpp loolu rek la euh, nekk ak ñi ma war a nekkal aussi lépp lu mu ciy def dama koy diisoo ñoom donc jubluwuma si ngir politique wala leneen daf ma war a ma koy def. te ki ko war a def tey muy kan muy honorable nun la ko yàlla boole ñu ay rakam di doon ay léppam doon ay bras droit aussi kon foo xam ne dafa la waroon taxaw ñoo ko war a taxaw lii rek moo tax ñuy jéem. pour vraiment appuyer ko soutenir ko jàppale ko fi ñu koy jaarale mooy lan mooy askan wi nu bañ a xiif bañ mat loolu yàllaa ko mën mais ñu ngi ñu ngi jéem waaw ñuy sax ko aussi ndimbal quoi. merci bonne chance président. Mm. merci bien merci. man Abdourahmane Sow laa tudd ñu ngeen maa xam ci Ndiaye Sow di imam quartier Cheikh Aldiouma Ba ma dëkk ak Libaas dafa am kër foofu ci quartier bi waaye tamit ginnaaw ba ma nuyoo imam ratib nuyu chef de village maa ngi nuyu sëñ bi sëñ Moustapha ak ñi topp ginnaawam libaas dañ koy seede lu baax waaye dañ koy soññ ndax lu baax xam na ko nit nag bu bëggee yokk da ngay joxe boo bëggee bayre dangay joxe boo bëggee gudd fan da ngay joxe ku la dàq joxe moo gën dugg avion dem ba Gàmbi wala dem ba Guinée wala dem ba Nigeria di wuti del joxe ndax joxe day yok wërsëg day lay wuññil say musibu yaron dal ci yow waye dalay may guddu fan lolou kon war nañ ko jangat ci libas libas nek li ngay def yalla bo ci gis sa wahmane, masna la wax mané libas, nit ku bax la li waral lol moy libas bu lay jox sax chamanyam bi du ko xam te bu lay jox sax seen bët du ñeentoo foo ko gis day xol ci suuf ko bari kersala la na la yalla yok yalla nek dafa wax ci alquran mo ne wa ma anfaqtu min shay'in fa yukhlif lepp lu ngeen joxe te yalla kesse mo tax dina ko remplacer lepp lu way di joxe te yalla nekku ci yalla du ko gis borom teral na len te ñi doomi senegal nañ gesu askan wi son nañ torop ndax nag koo xam ne si sa lépp ci senegal nga ko amee sam njàng Sénégal la ko fay sam sa sa teraanga ci Sénégal nga ko amee war ngaa gestu askan wi fii ñu toll ndax nit ñi xiif nañ sonn nañ waaye loolu nag dogal suñ borom la ndax dafa séddale ci yemalewut waaye ñi nga xam ne si nii nag dañoo yor seen wërsëg di ko bokk ak askan wi ñooñu war nañ leen a wax jërëjëf waaye war nañ leen a wane ndax fii mu koy defee itam xam naa ko bu baax soo xoolee rek da xam ne yayoo nañ ko ca yittewoo nañ ko bari na ñoo xam ne si nii sax boo leen xoolee ci jamono jii ñu toll da ngay jàpp ne yeyoowuñ dimbal mais ñoo ko gën a yayoo ca ña nga ci étage yu rafet yor oto yu rafet waaye mën naa am sax seen kër yu ñu fa dépasse dëgg lañ koy wax ñu bëgg seen bopp la ñu ñu xam seen bopp la nu tey li nga yor boo ko yor muy teraanga waxoo ñoom faale woon fee la toog jàpp seen jàmbur waaye ndokk yàlla ba nga jaxasoo ak ñoom nag ba yàlla ba ngay def lii yàlla na nekk yàlla na yàlla na nekk say sa sa sa sa njiglaay yalla dool sa wursak dool sa xewal nuyu aussi turu conseil municipal bi ndax ya ñu alsan Dia ñi ngi fi ndey Ndiaye ndey Ami mbey mbey so mbey mbey Ba ak yeneen conseil ñi ngi ci assistance bi pour wan leen rek ne relation bi nga xamne connexion bi nga xamne li bass amna ak la commune de Bambilor Li continuité la si action yo xamne maire def nako mom mu ñew làbbali ko kon ñi ngi sante suñu borom yalla ba mu ñu may ba fekk ko ndax amna fi nekkon daaw fekk ñu ko kon ñun bu ñu ko fekkee rek dañu war a sant suñu borom ñaan ko muy wokkal ñu libaas yàlla na yàlla yokk suturaal monsieur le maire nee na mënul fay libaas boo gisee mu ne libaas ama si doy la mu jëfante ak moom moo tax te tubaab doo xam ne la façon de donner vaut mieux que ce que nit ki la ngay joxe sutura ba nga ba muy àndal ak teraanga bi ànd ak yar bu muy àndal moo gën fuuf la ngay joxe te libaas loolu mooy jikkoom loolu la maire gis si moom ba mu taf ko si wetam libaas bu maire geesoo libaas kaay mu jógee dañu waa maire moom mu ne mooy libaas kaay loolu si jëfu libaas la nit ki nag la nga mel yaa ko defal sa bopp mënoon naa nekk fii moo mel neneen mais yaram ak teraangaam ak suturaam moo tax maire ñi ko ndax kilifa booy ne si wetam da ngay am sutura da ngay mandu da ngay xam xool sa bët fa mu teg bëtam te libaas fa maire teg bëtam fa la teg bëtam maandu na si digganteem ak maire am na lu mu xamal maire loo xam ne tey du taxaw si mbedd di ko wax ndax seen relation war na wéet moom wax ko secret libaas da ko wax fenn kon ku mel noonu nag bu kilifa ñëwee taf la si boppam jikko ba la kon ñu ngi koy gërëm ay mbokkam gërëm ko ay waajuram ñaanal leen yàlla defal leen sutura a ah, di wax eh, imam a chef de village gorom a ah, am ngeen doom boo xam ne kenn ku ne bëgg na kaa doomu sa dëkk ah loolu nag yàlla moo ko suturaal waa gorom 2 te teraanga bi muy def nii lii la wa lii la moo feeñ mooy social mi def nii dafa jënd ceeb ñu mën na ko teg bët mais am na ku ko wax léegi li baax la muy jox nit sa loxo ndeyjoor loxo càmmiñ du ko xam kon loolu mooy sutura ndax nit dina dox fii guddi di dox soxla te bëggul sax kenn xam ko kon ku mel noon nag dañ koy ñaan yàlla gudd fan loolu mooy jikko yonent sallallahu alayhi wa sallam nit da ngay am yéene si doomu aadama la nga yéene sa bopp nga yéene ko sa nawle ah loolu si turu honorable maire loolu laa bëggoon a wax si Libaas wax leen ne conseil municipal Bambilor bi yëpp yëpp yëpp si ginnaaw honorable député maire ñu ngi gërëm Libaas di ko ñaanal yàlla yàlla ko man ay ati at at